jigéen ñi ak yàlla su nettali tey ji mooy yàlla aar na saarata ci misra nettali bi mu ngi cosaanoo ci tawret bi njalbéen ga saar fukk ak benn aaya ñaar fukk ak juróom ñaar ba fanweer saar fukk ak ñaar aaya benn ba ñaar fukk saar fukk ak juróom ñeent saar ñaar fukk aaya benn ba fukk ak juróom ñett yàlla wax na Ibrahima ak Saarata ñu topp ko ci am réew mu mu leen di woon donte Ibrahima ak Saarata mag lañu woon teewul woon ba léegi Saarata doon jigéen ju taaru li yàlla tëraloon mooy barkeel Ibrahima ak Saarata ci réewu Kanaan ngëmu Ibrahima taxul woon mu dëgër ba léegi kon yenn saa yi daan wéeru ci ay pexeem ngir aar boppam xiif dafa amoon ca réew ma Ibrahima ak Saarata dëkkoon ñu toxu misra foofu amoon na pepp bi Ibrahima di agsi misra muy xalaat lan la waa misra nara wax ci mbirum saarata mu ne saarata xam naa ne jigéen ju taaru nga dafa ragaloon ne waa misra bu ñu gisee saarata dinañ ko waxi firawna te kon firawna dina ko bëgg a boole ci ay jabaram noonu Ibrahima xalaat am pexe naka Ibrahima ak saarata ñoo bokkoon baay waaye bokkuñu woon ndey mu wax saarata mu wax waa misra ne rakkam la xëy na doon nañu ko rey te nangu saarata bu ñu ne mooy jëkkëru saarata waaye bu ñu nee magu saarata la dinañu ko jàppe ni mooy ki koy wattu dinañu jël ba tey saarata waaye dinañu ko jox xaalis sarata ànd ci pexe moomu lépp am ni ko ibrahima xalaate woon bi mu diggee misra waa misra gis ne saarata jigéen ju taaru la jaraaf misra ya wax ci ay mbiram ca kanamu na firawna na ne ñu indil ko ko firawna berndeel ibrahima ndax saarata mu may ko ay jur ay mbaam ay giléem ay dag yu góor ak yu jigéen yàlla bégul woon ci li xew béggul woon na taqal saarata yàlla ibrahima la bëggoon saarata ngir matal li mu diggoon ibrahima noonu mu wàcc ay jàngoro yu bare ci kaw na ak waa këram ndax saarata na mu ji xam ne li indi loolu lépp mooy ne Sarata ndekete jabaru Ibrahima la woon Firawna daldi tiit mu woolu Ibrahima mu laaj ko li nga ma def nag lu tax waxoo ma ne kii sa soxna la lu tax nga ne sa jigéen la ba tax ma jël ko bëgg koo def sama jabar Aysa sa jabara a ngoog fawal te ne mott noonu na joxe ay ndigal ci mbirum Ibrahima ñu génne ko Misra moom ak sarata ak lépp li ko na mayoon ndax sarata ibrahima dellu kanaan yàlla aar na sarata ba beneen góor taqalu ko yàlla mu ngi doon aar sarata ndax am na lu mu namoon fii la nettali bi yem nanu jàng aaya bii ragal nit ñi fiir la wante ki wékk yaakaaraam ci aji sax ji kooku ku aaru la léebi saar ñaar fukki juróom aaya ñaar fukk juróom